Tapha Mbeur gis ngeen butéel yi nga xamante ni mu ngi ko indi ci bis bi. Ada nuyu naa la. ndeysaan ma ngay ma ngay sëlmu nuyu naa la. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Jawla Almisba Karaval maa ngi lay fay. tey nga war a remplir sa contrat bi dox sa diggante ak Tapha Mbeur yéen ñaar combat bi naam yàgg na mais gis nañ beneen Ada Fass bu soppeeku ci état de forme bi. ci mystique yi ci bis bi bis bi moo laaj loolu wala Tapha Mbeur moo laaj loolu. non du loolu làmb day dox quoi day day dox lu muy dox nan nga war a màggee di ànd ak moom xanaa ñu dañoo màgg si làmb ko waaw. mu mel ni gis nañ beneen Ada Fass nga jugee ci bébé bis bi ñëw ci Tapha Mbeur mu mel ni ba tey génnoo fi nga xamante ne yaa ngi fa nekkoon da génn parcelle duggaat parcelle lan la sa diggante waag parcelle. non du loolu du dara sax. naa ne parcelle man am naa fa ay ay plusieurs làmb. bu ñuy caaw far bu jar teg dama ko jàpp daan ko si wan si une minute waaw dama ko daan si une minute sant rek ñun mënuñu dara yàlla yor ndam yàlla joxe ndam ñoo koy ñaan yàlla ndam. jaajëf jaajëf kaay. waaw boo jëlee li ma koy wax bariwul li ma koy li poids boo jëlee mënoo gën a wex ki ma jugee mënoo gën a wex samay adversaire samay adversaire moom moo si gën a faible moom Papa Boy Djiné waaw moom moo gën a faible samay adversaire te le jour ji incha allah rabi dinaa ko maa moom du yàgg sax làmba ji si li ma liggéey ak li ma gëm su ma ñëwee dinañ xam ne benn bis bi dafa liggéey dafa am lu mu gëm incha allah rabi dinaa ko wane si lamb ji nii. li nga gëj a gis mais bi ñu la gisaatee daa mel ni état de forme bi danga ko yokk Papa Boy Djiné moo tax nga yokk ko wala bis bi da dañuy nekk si loxo di liggéey rek xam nga nekkee suñu père xam nga ak waa Cambérène yëpp ak waa staff parcelle ñëpp xam nga lamb ji bokkul ak lamb yi doon am bee bis bi lamb ji da nga teg si axe te am nu mu war a ñëwee si lamb te incha allah rabi dama koy ñëwee. yee bis bi mais da nga nga nga bëgg rectifier loolu mais papa boo ji nee na du la may loolu la nga ko yóbbante. incha allah ji mooy gën a yombal samay lamb. ah bon yéen ay gisal seen ji na bee bis bi waxoon na ma lamb ji mooy gën a yomb si lamb bopp. mais moom nee ji nee tapet la xalaatul sa jël si bee bis bi. lamb ji prib dib lay doon incha allah rabi. di mobiliser xam di comme dab lamb ji dina doy waar de. Ah ah. incha allah rabi. kon rendez waaw laa vous la kii rek incha allah rabi le 10 juillet rek incha allah rabi mu ñëw defaral gan gi bagage yi dem seeti leneen bu ñu tawaskee par après gars yi maa ngi écurie fee ne euh, si ñoom Papa Sow maa waaw maa ngi foofu waaw. lan moo bi nga nekkoon. écurie. man man nekkul woon si benn écurie quoi dama defoon sama licence benn écurie mais individuel laa doon entraîné quoi. waaw jaajëf ok. waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. mais papa ak combat bi noo koy waajee dayoo combat bi. dara jàmm ak salaam rek. waa ñun moom xam nga ñun ay Baay Faal lañ dara rëyul si ñun. waaw dara rëyul si ñun ñaar yàlla suñu borom may ñun ndam daal ci kàttanam ak mbaaxam eh, ñun yàlla rek lañ yaakaar ak Yonent di ak Serigne Touba ñu ngi sant bu baax di nuy Sénégal yëpp di nuyu tey xam nga xalifa généraux yi nekk si àdduna bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom may leen jàmm may leen kàttan may leen tal ak fekkee lépp incha allah waaw champion nga ndaanaan nga mais nga am ndaanaan muy bërekat nooy waaje loolu. sama objectif daan la te maa ngi ñaan suñu borom may ma ndam man champion lu mu mënti doon suñu borom moo ko defal man li ma suñu borom defal man xam naa ko maa ngi ñaan borom may ma wër may ma tal may ma fekkee incha allah yàlla may ma ndam si mu mel ni da ko jël au sérieux ndax gëj nañ la gis papa dafa mel ni dafa lëlu sàcc boppam. waaw sant yàlla ñun ay xale rek te dañuy liggéey rek suñu borom moom xam nga moom moo yor lépp waa dénk suñu bopp ay kilifa yoo xam tey jii nga xam nga ñoom ñu bëgg rek ci loolu la ñuy nekk donte ay ndaw lañ te am na luñ bëgg mais sant yàlla baax yàlla ñu yàlla yóbbu si jàmm ak salaam ci combat bala le 10 yàlla may ñu ndam ci kawam daal incha allahu rabi. yi mu am yow yaa ci ki gën a nooy ci maanaam jéggi jàll la lay. waaw sant yàlla incha allah. moo waaw amul problème xam nga njëkk a saaga yàkkamtee xeex la te nee naa leen xam nga yóbbante galgal ubul làmb làmb xam nga du ay wax yooyu yoon noonu déedéet moom dafa yàgg si yoon bi comprendre nga fi waxee ñun ay xale lañ ba pare xam nga ñu nekk am na suma avenir u làmb ñun may ñu suñu bopp te jii nii tax ñu egg si fii nii moom mayul boppam lu tax mu war a bëre ak moom wala mu bëre ak man yàlla moo ñu boole ñu war a bëre moom nag xam nga lu ko neex mun na wax lu ko neex mun na def mais l'essentiel si kàttanu yàlla la diis incha allahu rabi moom dina xam ne moom am na combat daal. waaw yow man man ragaluma loolu. dangaa taxaw samp jaaga <laughs> ah yàlla rek <laughs> l'essentiel daal ci kàttanu yàlla moom ah xam nga li li olof di wax rek nit ki mënoo mënoo ñàkk jaar armée wala nga jaar daara wala nga jaar kaso di nekk ragal ñett yooyu mënoo fa jaar di nekk ragal man mënu ma nekk ragal làmb moo waxul dëgg rek mais man mënu ma nekk ragal barke alxuraan man ci li ma jaar li ma dund billaahi wallaahi taalaay mënu ma nekk tapet boo bis bi moo gën a xam loolu faax. yéen yéen lay naxee mbaay nii nii di expliquer ni ay détails moom xam na kuy Papa Boy Djiné bu baax. billaay wallaay wal kitaab si kàttanu yàlla ak mbaax mu dëggalee boppam billaay wallaay taalaay dina bëre combat bu musul bëri si carrière sànq say wax ma ne ma ne ma ne bu yàlla dogalee ba at bi génn suñu diggante dina xam ne am na combat. Hmm. yee fii nag dañuy waxante rek waaye mais jëf yi foofu la la diis incha allah bañ yegg foofu. man si kàttanu yàlla li may wax nii si bu yàlla defee jàmm defal ma jàmm loolu laay def moom nee day ñëw nag si kàttanu yàlla te nee na làmb ji du weesu deux minutes si kàttanu yàlla ak mbaaxam xam naa dama ko gën yombal dañuy daje. kon li nga ma waxoon daal sa yoon ci làmb fas yéene ko koo confirmer. ma na Serigne Abdoul Karim Mbacke ma yaakaar laa la wax su ñëwee ma ñëw bu ñëwul ma ñëw si kàttanu yàlla. dama ne su ñëwee ma ñëw bu ñëwul ma ñëw. na jaay këram ba xam du teema daan ko. combat bi bëgg na ko def. maa ko gën a bëgg ji fop man lébu pire la ci taatu géej gi lañ nekk liggéey ba oos wow koŋ ay pokaar laa koy dóor ba mu tëddi du ma moroomam. pokaar pokaar du géej gi xam nañ ne pokaar mooy yet wu ñu namma ba mu normal téye ko pour dëgër boobu ñu yar ko ci. moom laay def si dama koy marquis. dafa am lu ma metti loo xamante ne ni bu ma demee bay bëreeg Maguette Seck bii coow mu mel ni bëy sama kanam dafa am lu ma metti mais lamb dafa waaw non maye du ma ko blâmer ci côté boobu am na droit wax lu ko neex mais dama dul morom te dinaa ko ko wan la dis incha allah xale yi mu jugee xale yi ñoo la gën a oos fuuf ndax ku bëreeg ndongoloo daan ko jël bu rëy bu mel noonu munoo daan xale yooyu te jël na xale daan ko da lay jël daan la yéeg ci kaw. ñi muy wax noonu ndongolo ku ko jox cër laa wax dëgg mais bi ko Maguette Seck di daan dafa fekk nekkul ci dara Maguette Seck ndongolo moo tax ñu xam ko na gërëm ndongolo te bàyyi xarab bi mu koy xarab. bu dul woon ndongolo man xaw ma ko woon barka alxuraan ndongolo moo tax ma ràññee ko jël ko nii sax bon bu mu wax loolu quoi mbër boo ko daanee bàyyi ko mu tëdd nelaw. mais ragal naa ci kaw yéen ñaar ci kaw pëjam bi dina neex tay waaye non bu ma maytuwul ci kaw man ko nga naan man <laughs> day xam ñëw pour remplir sa contrat sa diggante ak Agogo seen diggante yéen ñaar. waaw sant sant yàlla julli si yonent bi sant suma ay ñaari waajur. da ko xamal ni xale laa damaa ne si yoon du man ak ñoom. bàcc sëñ Fallou man maay dirigé bar bi sifflé lép maa koy def. sa diggante Agogo. lépp man maa def. moom moom nee na mu xees moo tax nga ñeme ko. waaye yow boo wéeteeg moom ci digg géew. li muy wax li xam ne lépp li muy wax noonu intéressé wu ma lépp man maa koy def. maay bëreeg moom maa koy duma maa koy daan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam damaa ne ci yoon du man ak ñoom. dañ maa yónni yaa xam te ma du man ak ñoom bàkki Cheikh Ahmadou Bamba xale bu ndaw laa te damay liggéey billaahi du man ak agogo te bu ñu bëree ba pare li may wax ni di ngeen ko tegaat man xale laa nekk si yoon li topp sama ginnaaw bëre dañuy ñaan bis bi yàlla yóbbu ñu si ak jàmm man ak agogo ba ñu simee ko taxaw si biir géew kon tey mën na jàpp ni ci digg géew bi yéen ñaar dina neex léegi man maay diriger même signature man maay lépp lépp man maay diriger man maa koy wax taxawal fii mu taxaw fa bàkki Cheikh Ahmadou Bamba du ko dépassé maa ngi wax yam ma fii fa la may yam li may wax nii nekkul dama koy wax pour média yi dañ maa tiim nii de li ma la laa wax maa koy wax yam ma fii. da koy jëfee léegi ci kàttanu yàlla. kon baax na ba ci yàlla yàlla dolli suñu. delloo ziar. non sama yaram dama kontaan dama kontaan. non lii nii xoolal ñu ay xale yu ndaw lañu. barke si nga li ñu ko gisee sama yaram dafa daw ñun xamuñu dara mënuñu dara. waaye dañuy soog a door ba ñu defal ñu lii kon kon Fallou Ndiaye dama ko gërëm di ko sant sama adversaire li ma koy yóbbante après si kanam la fii ah, waaw ah? waaw loolu xam nga rek ñun dañuy liggéey xale lañu ah, waaw ñun dañuy da xale bu ndaw laa dama ne si yoon waaw lamb ji namoon na ma maa gënoon na ma lamb ji su ma su ma sañoon suba loolu lamb ji doon barke Sëñ Fallou billahi Mor Kang Kang a ngi noonu ndeysaan Mor Rajaxe Kang Kang rang rang rang muy gaaw Mor a ngoog Iba Maar maa ko moom barki Sëñ Fallou Iba Maar man maa moom Baara Mbaye bi benn bés tàq lu na ma cat sek segal tëgal Baara Mbaye si kanam la del xool jàppee dina la dóor ba ngay bëgg a dee. kii aw ma lu ma lu may wax ak moom. kii ay defet la tegale. moom mi man tegalewu ma ay defet man su ma tegalee ñaari defet bàyyi trois defet la tegale. nee na toog trois ans bëriwul. nee na yow ndongoloo moo lay indiwaat trois ans bëriwul. nee na ndongoloo man. man 2009 ba 2019 seize combats laa ci bëree ñaar laa perte. kii bokkuma ak moom. maa ko dàq bëre maa ko gën a ñeme. te buñ demee làmb de dina ko xam. doomu jalaam waaye kii kii kii kii du mbër waaye. kii daan la kii daan dara ak ah, ci dogal waaye. da nga bëgg wax entraîné wu na xaw ma laalu lébu yi laalu nga koy su ma su làmb su ma sumee kenn du ko xool. moom waaw man maay paa bi moom kenn du ko xool yow ñoo nga fekk ma may liggéey su ma sumee kenn du ko xool moom man maa la wax lii bu soobee yàlla. incha allah kii xeex ak moom. Eh, kii daa am njariñ kii kan la mos a duma man maa affronté ay ponkal. yandaa daa dox ci kawam dàq ko fii duma ko daan ko man ma jàpp yandaa duma ko munul naan ndox. daan ko Pape Sène man Pape Sène damaa bëre ak Pape Sène yow xamoo lamb yow da ngaa wéru man mos naa bëre ku tudd Pape man bëreewu maa Pape Sène bëreewu maa Pape Sène. ci adversaire bi. mosal ci adversaire bi. kii kii béy ka nampal mais naa ko corriger. dafa bari wax. ancien gloire la. moo jàngal Balla Gaye bëre kii. waaye yow bàyyi waay yow dalee bëre moo yàgg yow da nangu lii yàlla dogal yaa ko wax nangu lii yàlla dogal waaw nangu ko mag bëri mbéb mbéb mbéb rek. nañ suma kaañ suma ko kaañ suma ko kaañ suma ko kaañ suma ko maa la pour doole maa la man barke Rasulullah doo ñett wallahi wa taalaay buñ bëree ba pare di nga xam man maay kan nga yow bu arbitre sifflé ngay xam ne jalaawa bon dinaa la humilier yow maa la man fam